ba tey ñu ngi fii ci ndaje mi nga xam ne mooy am fii ci Daaray Koki ñu ngi toog ak suñu yaay Ngoné Jàppa ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara gis nañ taxawaayam fii nii ci daara ji macha allah am na ay tout tànk yoo xam ne ci daara ji lañ génnee te terewul ba léegi ñu ngi xencu ci daara ji lépp loo xam ne am nañ ko ci wërsëg rek ñu ngi koy indi fii ci euh, daara ji ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di ko laaj rek euh, ban yëg-yëg la am bu fii ci daaray Koki rawatina moom mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy laaj alal di ko indi fii ci daara ji di ko laaj mbokk taalibe yi sonn ci lool lu mel ni ki ay matériel lu mel ni ki xas yooyu yëpp dañ koy dajale di ko indi si daara ji ñu koy laaj rek euh, taxawaayam ak yëg-yëg bi nga xam ne moom la am ci daaray Koki. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu nañu sant yàlla julli ci yéen salaay salaam di sant sama sëriñ bu baax sëñ Daam Seck ndax lii lépp moom la moom xam ba ma xamanteeg kokki ndax moom moo lépp moom la ndax moom boole soxna Marème Lo ba ma amee fukki at juróom-benn teg ma ci loxoom may àndak moom di ñëw kokki di ànd ak soxna Marème Lo di ñëw kokki di ànd ak ñoom di ñibbi. ba yàlla dogal soxna Marème Lo dem na ba mënatut a ñëw mu ne ma léegi kon sama place ma daan dem yaa ma fay demal keroog ba ma ko jëkkee wax damaa gàntu ndax sëñ bi dañoo jox ndigal ñu itam xale seen day daara di nekk fii di yaa Marème ba sëñ bi jox ñu ndigal ñuy togg foofa di fa dalal suñuy ma daan jiite foofa waaye yàlla dogal na soxna Marème dem na ba mënatut a ñëw kokki mu ne ma léegi foofa da nga ko bàyyi tey ñëw di ma taxawul fi ah loolu de moom ndax dana mën a nekk ndax xale yi foofu tam waaw ñaam ko leen di taxaw mm-hmm. mu ne ma man de foofa sama yoon nekk fa waaye fii moom yaa fi tax yaa ma fi teewal mm-hmm. mu diis ma loolu ma gàntu mu ne mu waxaat ma ko mm-hmm. ah ma xam ni kon nangul ko ko ndax taxaw gu ne taxaw na ma ko moom soxna ma rew loo ma nangul ko ko mu di ma booleeg ay doomam ak rakkam ji bu ñëwee fekk ko fi mhm. ñun ñëpp ñu bokk fi nekk mhm. xam naa sax mutuñu palaasam mhm. ndax soxna Mare moom kenn mënu ko taxawal palaasam dañuy jéem rek dañuy jéem rek di ko sant bu baax di sant sëñ sëñ Maxtaar di sant sëñ Fallou di sant soxna Xadi mi soxna Xadi jam yi nga xam ne mooy rakkam ñu di ko fekk ndax yaatal nañu mënoon na bu ñëwee mu di ñu xool bëtu lu ngeen fii def wala lu ngeen fi sant gannaaw ma sante soxna Marème sant sëñ daam sant soxna Marème pare di sant tam xadiloo mi ak ndeyloo ndax mënoon nañu kat ñun ñooy doomi soxna Marème Lo kon duñ ma ci dugal sax waaye macha allah lépp ci sama loxo lañ koy teg ba ci bintu mais jóge Louga lu muy jënd yaay jàpp lu ñuy def ñoom lépp daal dañ maa jiital teg ma dëgg yàlla teg ma ci kanam loolu nag mu sedd sama xol lool aw ma seen fay nag yàlla mi am seen fay yàlla na leen xaj na sax yeewoowu ma ko matuma ko ñoom ñoo ma bëggal seen bopp rek jox ma ko kon maa ngi ñaan yàlla suñ soxna seedi soxna Marème Lo mi ñu yónni yàlla na ko fa yàlla yàggal may ko wér mu yàgg ñoo yónni ñu dellu di ko fa fekk ñiim ñii yónni itam di sëñ Matar sëñ Fall Lo ñu yàgg leen fee fekk ñu di leen ndax wax dëgg yàlla ñoom itam suñ ñëwee li ñuy gone gone bët bañ daan xool soxna Marème rek la ñuy xool suñ dara du manqué cër bañ ko daan jox lañ ko daan jox lépp lañ koy jox at mi ñu fi jëkkee ñëw sëñ Fallou dane comme yaa mare ma sëñ Fallou sëñ bi da ko daan fekk si sëñ bi ñëw mën na ko mukk loolu moom ndax ñun ay xale rek na soxna moom kilifa sëñ bi la xam moo mag sëñ bi moom sëñ bi mën na ko fekk si waaye ñun ay xale luñ duñ toog sëñ bi duñu fekk waaye bu fekkoon ne nangu nañ ko kon sëñ bi mooy ñëw duñu fekk si ñu di ko jébbal liggéey bi waaye mën na ko mukk looloo tax ñuy dem buñ jàllee ba ci altine ñu dem ci sëñ ba jébbal ko liggéey bi wax ko li ñu soxna Marème ni jébbal ko liggéey teewul lépp xale yi ñëpp lépp sama loxo la ñuy jiital sama loxo la ñuy teg lépp loolu nag amul seen pay yàlla ma am pay yàlla na leen fay bu baax daal di la jaajëfal comme mu mel ni kii ñu leen dénkaa rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax rek iqra'u alquran fa innahu yati shafian li ashaabihi jàng leen alquran ndax ëllëg yowmal xiyaam moo leen di ramb waaye ñi nga xam ne yëkkati seen alal seen doole seen mën-mën di ko def ci alquran nañu xam ne ñoo ñi jàng alquran ñoo yem képp ëllëg yowmal xiyaam ni ngeen di rammee daara ji ni ngeen nekkee ci daara ji sonn ci lool ëllëg yowmal xiyaam it noonu la leen alquran di rammee ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax ñu may ñu kattan ak wér ba ñu bu ñu tollee ci li ngeen toll rek fekk ñu nekk ci li ngeen nekk jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax a baax xam naa dañuy jox suñu yaay rek mu daal di sànni ay kàddu ñaanal ñu ñu daal dellu ci liggéey bi. daanaka man samay wax bariwul li ma naroon wax yëpp Adja Jàbb wax na ko daara ji daal seet na ne léegi ñi nga xam ne ñooy def fi sabilillah ñoom gañe nañu gañe nañu ndax euh, yaakaar naa. ñi nga nga xam ne noonu ñooy mbokk sëñ Maxtaar joteetuñ sax ci sëñ Maxtaar ku ne yaa ngiy def li nga man ak loo mënul ku ne boo sañoon def ci ah man mii de bu ma sañoon lu ma am def ko ci sama morom noonu naka si noonu di ñaanal itam nag soxna ma remaloo ndax mooy suñ mag mu dem ba tële jàpp ko mu fam ma ne ma léegi toogal ci place bi ma daan toog yaag Adja Diallo mi ak xadaloo mi ma ngeen ko loolu lépp ñu ngi koy doxal wéruma sax waaye teewul daf ne ma rekk defal loolu léegi la may woo téléphone ne ma wéral ba ca kanam kon nag may maa ngi koy ñaanal di ñaanal sama dëkkandoo yi ak nekkandoo yi ñuy am man rek di am man di ko ñëw di ko def ci biir kooki lu am solo la lu am solo la foofu daal laa ci mën a ci samay kàddu daal yéen it ñu leen di ñaanal ndax maa ngi leen di seetaan ki démb ñu mat a ñaanal ngeen ñu a ngeen yéen ñu mat a ñaanal ngeen ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax mën na noo woote de waaye siiwal bi yéen ay jottali yoon ay jottali ba ku ne jot ci ku ku gisul woon gis ku xamul woon tam xam ñoo leen di ñaanal fu mu daal ñoo leen di ñaanal di sant di wax jazakumullahu xayran amal jaza jërëjëf sëriñ bi euh, soxna si ñu lay sant bu baax a baax di la jaajëfal comme ni sëriñ euh, Maxtaar sëriñ euh, Ahmed saxiir Lo li nga taxoon a jug rek muy bokk ci inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafisun kon yàlla na ngeen ci bokk yàlla na ngeen ci tase ak sëriñ bi ñun ñëpp ñu tase ci ak sëriñ bi jërëjëf يا